président de la république ñun waxuñu la nga dépénaliser wala nga ñàkk a dépénaliser l'homosexualité réew mi du sama réew du samam réew réewu sénégalais yëpp la dund nga lu ëpp fukki juróom fukki at dégguloo turu président de la république yàggatul dara tur woowu danañ ko nangu ci yow jox ko keneen maa ngi lay woo di woo sama bopp nañ rafetal suñ digganteek suñ borom rafetal suñ digganteeg suñuy morom bu nu dara jaral ci àdduna ñuy yàqoo ak suñu xeet di yàqoo ak sunu borom ñun agenda lañuy ñuy agenda boo xam ne yow xam nga ko agenda boo xam ne ci la GP GPA di dox ci la EPU di dox agenda boobu yow xam nga ko bu baax agenda boobu ñun moom la ñuy combattre dafa dépasé fi ngay waxee nga nekk fi danañ ko combattre nga folli ko danañ continuer di ko combattre combattre wuñ ko ngir sëb dund dañ koy combattre ngir lan wéyal ndigalul borom bi tabaraka wa taala ak bëgg sunu askan ndax dañoo xam l'LGBT la muy jural askan ci ay xeeti toskare li ñu gisagum ci toskare rek doy na ñaari at yi yépp ba ñett covid beeg la ko jiitu woon ak Ebola ak lu ne ñu ngi koy gis xeeti musiba yooyu di dal ci askan yi te dara yóbbeewu leen ko ludul ak mooy yàlla maa waqaa balaaun illa bi danb wala rufia illa bi tawba bala saa yu wàccee ci xeet bakkaar yu bëree ko waral ñun xeexuñu LGBT rek yem ci président ñun ab agenda la ñuy xeex gis nga lii nuy tuddee sax njaaloo gi ñu daganal ci réew mi dafa bokk ci sunu biir combat laïcité bii nga xam ne tey mooy promouvoir lépp loo xam ne ak mooy yàlla la di ko fat di ko jaboote dafa bokk ci sunu biir combat république bi nga xam ne yow moom nga gëm dafa bokk ci sunu biir combat ñun yàlla la ñu gëm l'islam la ñu gëm amuñu benn valeur bu ñuy bu dul bu bàyyi ko ci borom asamaan ak suuf xamuñu itam ñuy tuddee seen bopp nouvel ordre mondial wala gouvernance mondial bi nga yo yow mom nga xam mom nga gëm ci ngay ci ngay ci ngay dox ci ngay wax euh, sunu mbokki borom xam-xam yi nak ma ngi len di wo sëñ Moustapha Guèye ma ngi lay wo ya groupe bobu da len ñun seeni mbokk lañu paré nañ pour rencontrer len yeen ndax fi nuy waxe xam ngeen ko ni ngeen deglo président ngeen deglo ñuko ñu exposer leen clairement agenda bi nga xam ne ci la gouvernement bi di dox bu boobaa da ngeen xam fi ngeen di teg seen tànk am na jéego boo xam ne yéenewuma ko sama bopp kon duma leen ko yéene askan wi dañu yeewu dañu dépassé cadre bi président de la république di waxee man la seen mbokk imam Aliou Ndaw fii ci kaw Kaolack combat bi day door a day door a démarrer te day continuer incha allah.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 law kuntum taalamun kon nun kenn duñu xuppee ndee kenn duñu xuppee armée kenn du nu xuppee tëj buñ ñu doon tëj téeméeri at ci kaso yi bu ñu génnee dañuy continuer waat te itam fañ ñu tëj dana am ñeneen ñu nekk suñ gannaaw di ko continuer incha allah yal nañu yàlla def dëgg-dëgg jullit ñoo xam ne combat bii dañ ciy sincère te duñ ci mës a deltu gannaaw maa ngi nuyu mbokk yi yëpp di woo nag mbokk yooyu toogoon ak moom ca pale ba ne leen am na loo xam ne bëgg luñ leen ko xeet bi yeewu nañ de ma tee ngeen essayé toog ak ñun ñu exposé leen li ñuy xeex bu keroog yee da ngeen xam li ñuy xeex lan la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu